CEDEAO dañ ko bokk société civile secteur privé état yi ak institution yi ñu bokk ko muy suñuy fi bopp ñu dem ba CEDEAO soxé soxé bu baaxa baax njitu réew yi ni dañuy joggé ci Nous bo xamné ay njitu réew kessé Nous yor ñu dem ci askan koy yoral ko ñu gis ni amul ndax ba tay njitu doxal des peuples amagul ñu gis ni nag CEDEAO bokk na si li ko gën a sooxeel jafe-jafe yi am ci démocratie ci Afrique sowu jant problème mu coup d'état yi nga xam ni ay ñàkk a wormaal démocratie moo ko indi fu am coup d'état ñu tëb condamné ko ni bëgguñu coup d'état militaire waaye bis bu ne ñu bis leen ñu bàyyi coup d'état démocratique wala coup d'état constitutionnel bu ñu gisee njiitu réew buy salfaañe constitution di di ci def coup d'état du ñu wax waaye bu militaire jógee arrêté loolu def coup d'état ñu jóg sanctionné ko askan wi nag ni loolu dafa war a dakk CEDEAO dafa am itam benn protocole maanaam déggoo la bu ñuy tuddee protocole gouvernance ak démocratie ñu bëgg réew yi yokk ci ni protocole boobu naan nañu defal démocratie léegi dootu ñu nangu benn réew buy def ñetti président buy def ñetti mandat ci sa pouvoir ñii fi toog ñépp ak kuréel yi loolu la ñu d'accord pour ni nañu réexaminer maanaam ñu changer soppi boobu protocole pour que CEDEAO léegi dàq ko njiitu réew bu bëgg def troisième mandat askan yépp bañ ko ndax gis nañu ni ñetteelu mandat yooyu moo indi la xew Guinée te bu ñu deful attention mën na indi leneen feneen loolu itam ñu dàq ko ñu gis ni CEDEAO itam lu cher la alal ji ñuy liggéey ci Afrique soowu jant yépp lu ci bari dañ ko koy jox pour mu ciy dox waaye fukki commissaire ak juróom ku ci nekk la ngay dépenser ëpp na bu président de la république